مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظل yéen ñi yitte woowoon daaree alquraan ngir ndaw ñu jigéen ñi te di ko sàkk waxtu bu nekk ginnaaw bu sëriñ alxaaji njaay seex ndindi sëriñu daara andi leen daara yi alquran joo xameen ci góor ñi rek lañ ko jagleelan muy internat ba andil leen franco arab ngir ñi nga xamee ni mokkal nañu alquraanu karim jóg na nag ngir saafara seen bëgg-bëgg ànd ak yéen seen xemmemteef tax mu andi leen daaray alquraan joo xamee ni jigéen ñu ndaw ñi képp lañu ko jagleel daara jooju nag ñoo ngi ko duppe daaray soxna ummi mbakke bintu xaadimu rasul mu nekk ci tuuba yoonu njurul ñaari baay faal daara janak ubbi na place dañu ko limité muy daaray soxna ummi mbakke li nga xamee ni si moom lañ fas yéenee taxawe mooy tàggat ndaw yu jigéen yi ci dénkaaneb Serigne Touba Xaadim Rasul bi mu dénkaan soxna Penda Diop ba ñu nekk ay jurit yu dëggu nekk ay murit saadix yor mboolem melokaan yi ni nawe jigéeni julit daara jaatem waajal nañu ko ba bépp jumtukaay buy tax xale yi man faa nekk nekkin wu sell am nafa fa ba mu mat sëkk seeni dëkkuwaay fa ñuy tëddee béréb ya ñuy jaamoo yàlla mu am sécurité lool am ay caméra ay soxnaatem ñoo fay nekk di leen toppatoo di waajan waajal di leen jàngal diine di leen yar ci lépp loo xameen si jigéen dina ko aajowoo képp ku ci bëgg am lu la gën a leer man ngaa woote 77 682 54 34 wala 77 477 30 60 kon mbokki julit yi mbokki taalibe yi jaaxle fu ndaw ñu jigéen ñi jàng jànge alquranul karim ame fa yarub diine jeex na takk ci Tuubaa Mbàkke ak li ko wër ak daaray internat soxna ummi mbàkke bintu xaadim rasul nekk ci Touba yoonu njurul ñaari baay ci njiitul sëriñ alxaaji njaay cheikh dindi sëriñu daara ñoo ngi séntu ñëpp wassalaamu aleykum taala wa لك من الله من